kon mi ngi noonu alaaj Modou bu fekkee document bi doon laaj léegi war nga ñu ko ñu daal di ko voilà ñu dimbali ci sénégalais yi. Mm-hmm. bi ngeen gis. Mm-hmm. dafa am waajoo xam ni dafa mbubboo photo mm-hmm. ki nga xam ni mooy euh, euh, DG bu. Mbaye Ndiaye euh, DG Mbaye lii nag waa lii maanaam kii dafa def faux compte di ubbi aw turu jàmbur. ci saw tur jël ab photom def ca wane ni yow kat yow yaa jiite dowaan di déclarer ay mbir yoo xam ne dañ koy jaay. pour lenn ci Sénégalais mi ngi noonu ba def ci numéro am lenn ci Sénégalais yi. di dugal seen xaalis pour am lu ñu bëgg ca duwaan léegi nag ñi nga xam ne gërëm mampaate rawatina bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ñu ko signalé wane ni sénégalais yëpp yi seetaan ci biir ak biti réew ñu xam ni. fu ñu gis waa jii def DG mbay Ndiaye def ah. numéro téléphone bii jël mm. photo euh, ki jiite douane def ci. Mm-hmm. sàcc la. Mm-hmm. bu mag sàcc la arnaqueur la mi ngi sàcc ay xaalisu sénégalais. Mm-hmm. defe naa loolu mooy alerte ba bàyyi. Mhm. waaw waaw loolu am na solo son yi. bu ndax xam nga ci zoom yeeg mhm. bi. xam nga boo gisee mu def lii. waaw mooy comme ça tey jii yenn Sénégal yi nga xam ne bëgg nañoo gaaw comme ça gaaw gaaw bindoog yooyu. mu yoxal la ni ku bëgg a gaaw a bindu si li ñu jaay yooyu nga teel dugal. boo teelee dugal rek pour man sa nga kontaan quoi. waaw yaakaar ne yow yow mi teel dugal boo àggalee da ngay teel a jënd. Mhm. te affaire bi lépp lu ñuy kii demewul noonu dañ koy teg ku ñëw yor sa xaalis buñ nee laa lii soo ko mënee nga daal di jënd dem. kon lépp ñoom seen i mbir teg nañ ko si yoon réglementé nañ ko ba mu ni cocc kon nag képp koo xamante ni jóge nga fee gis loo xamante ni si mbedd mi bu si dugal sa xaalis mbiru mbedd daal wóoru looy dugg na nga na naa nañ nga xam koy def xam fam nekk xam lépp mhm. waaye gis benn texte rek nga dugal sa xaalis toog di espérer di xaar dat da xaar dat ba date foofa te doo doo doo doo jënd doo jënd waaw doo jënd voilà macha allah lii am na solo mhm. euh, pour ci xeetu boor gi la bokk pour freiner euh, arnaqueurs yi mhm. mais parfois pour freiner arnaqueur aussi tamit xam nga pareen saay arnaqueur dañuy def loo xam ne euh, day wane ni manquement am na. Mhm. waaw parce que tey jii bu fekkonte ne bi douane loolu nga xam ne moom lay def. Mhm. di jaay ay. matériel léeg-léeg oto yeeg matériel yi nga xam ne moom lañuy jaay. bu fekkonte ni bi ñoom defoon nañ lu mel ni mu nekk sit boo xamante ni ñëpp xam nañ ko. waaw ku am information dem fa. nit ñi kon arnaqueur bi du utiliser lu mel nii pour def ko. maanaam kon dafa mel ni manquement dafa am. Mhm. parce que bu fekkonte ni bii tey la ñuy def ñoom di def pour jaay oto yi ñëpp a ngi koy yëg fañ ko war a yëgee. Mhm. nga xam di nga def publicité wane nii lii ak lii douane day def lii ak day def lii. Mhm. bu boobaa loolu. dina mën a kii mais manquement mooy faral di am. est-ce que amut est-ce am na da koo copier da ko waa kon ba tey manquement dafa am mm. parce que même bu fekkee ne dafa am mu copier ko mm-hmm. ba noppi dugal numéro téléphone am ak mm-hmm. loolu maanaam dafa war a am ay tapage da nga war a def publicité mm-hmm. comprendre nga parce que parents am na ñoo xam ne yëg nañ ko mais xamuñu ko ñi xamul ñu mhm. mën nañoo gën a basu kii sax ah. mën naa gën a siiw comprendre li ma a mhm. léegi nag dafa waroon a am ay publicité yoo xamante ne bi dañ koy def mhm. ñëpp yëg ni douane fi mu toll nii mi ngi loolu bu boobaa am di nga tayalloo ñi nga xam ne ñooy arnaqueurs yi quoi parce que parents arnaqueurs yi moom dañuy xool ay faay rek fu mbir mi amee kii rek ñu dugg fa ñoom créer yenn mbir yi. Mhm. waaw loolu nag. Ah, kii la mais yow da nga leen di gën a muus bu ñu defee lool da ngay gën a fàtt mbir yi lii ñu def nii lenn la ci pour. Euh, yoole mhm. comprendre mhm. waaye aussi tamit gën ñoom it nañ gën a fësal mbir mi. waaw ba nga xamante bi dina fës bu baax léegi léegi DC Ndiaye. incha allahu rabbi su ma jogee ci lii dinaa fexe ñu déggante ñu toog ñu waxtaan. ma expliqué leen nan lay demee ba pare nan lañuy def ba koy siiwal incha allahu bi ñëw si. émission bi waaye loolu loolu la Sadio ko tegee fii. pour wax ko nga jox information man damay toog ak moom jaxaran dafa am code yoo xam ne arnaque may seetaan. arnaque yaa ngi seetaan. léegi am na yow mii yaay arnaque man mi a arnaqué yow. <laughs> parce que <laughs> yow déglu ma. xam nga waajee da bi ñi nga xam ne yow bëgg lool yow nag léegi douane ci boppam nga bëgg a arnaqué yow moom <laughs> yow yow yow a yow sa gën a garaaw. wax dëgg yàlla yow wax ko ko fii nga naan damay def toog ak moom. bëgg toogak moom xam nga saada ni ñu koy siiwal ñu waxtaan bu ko defee non non damaa bëgg ñu ñëw fii sponsoré émission bi seeni mbir muy jàll fii te dinaa dem waxtaan ak moom. Ah, ci maanaam seen communication di seen communication fii lay jaar ci hmm. solution TV. benn waaw. Ah, beneen bi nag dafay jubbanti. waaw beneen bi nag si wàllum wëraloon bambadu foofu. non si wàllum. <laughs> day am da ngaa mat mu taxaw day tappale rek. maanaam bëgg ñoom seen communication di jaar. waaw kay nga xam ne kenn duut leen arnaque. kenn duut leen arnaque ba pare mu intégré ma si conseil yi. moom DC Mbaye Ndiaye ku intégré ma si sa biir conseil yi bu ko defee ñuy ñuy liggéey incha allah si wàllum euh, conseil yi ndax moom dossiers yi bëri na kii bëri na xam nga ak Sénégal yeeg coow yeeg nangam nangam yu yëpp bëri na loolu nag nga am ñu mel ne man yaay conseil euh, Serigne Boub Serigne Boub waaw ak Bougane Serigne Boub laay conseil ak Bougane Bougane dama koy conseil mairie Dakar par Barthélémy Dias dama koy conseil waa léegi yow nga bëgg cee dolli waat euh, DG dama siy dolli sax Ndiaye bu bàyyi Aly Ndiaye ko conseil mm. Euh, dinaa conseil Ilimane Lam. ñooñu ñëpp waaw. Assane xati yow kenn nit ki. waaw bopp dinaa conseil dinaa conseil El Malick. waaw Baar dinaa conseil euh, kii nu mu sax euh, Biram Souley Diop. doy na dinaa conseil ah. doy na Waly bu ko fàtte. Pape Alé moom damay dem biirom Pape Alé moom kenn mënu maa téye RTS <laughs> il faut ma dem ba toog ak moom moom Pape Alé ñaa koy ma mbag dinaa conseil daa Mbodj. Assane ba baax na. may wax léegi léegi ku yow ku déggul sa bopp rek ci nga bopp. waaw. Ah. maa ngi leen di diglu ñoom ñëpp. d'accord